dañu ne rek nañu jéem a accompagner femmes yi ndax xaalis buy nelaw ci ay kees baaxul te comme social lañu wax jëm nañ ci euh, événement mieux vaut ñu jël euh, xaalis boobu jéem ci financer femmes yi ñu mën a am lu ñu jàppandiku ci tamxarit bi idée première bi nag mooy nañu dajaloo ñu jënd nag séddoo ko. ba nga xamante ne kees bi macha allah bi ñu fi ñëwee woon keroog ba ñuy toj te ñu amoon 11 millions cent yi ñeneen dañ ko dégg daw si ñëw ba léegi nag kees yi nekk na 6 caisses de 45 nous comptons maintenant 265 personnes donc ñuy membre Calebasse d'or bi kees bi nag daal di génne woon 3 millions 240 mille pour jox membre yi nga xam ne ñoo soxla ñu demandé ku nekk 13 500 ñu mën a cotiser pour jënd nag ci tam xarit bi. waaye nag am na si ñoo xamante ne woon dafa fekk xëy na seen i mbokk dañ leen ci may ndawal ou bien ñu yaakaar ko feneen ñoom nag ñu leen nañ leen jox donc ñoom ñu jënd légume ak cere financé nañu ñëpp léegi nag cinquante femmes ci biir ñooñu ñoo dajale seen xaalis kees bi tamit dooleel leen dollil leen ñu jënd nag ñaari nag yi ñaari nag yi de waa ji bañ demee xaw nañu sonal nag nañu un million deux cent moo doon dernier prix bi mais vraiment biñ ko expliqué social bi xam ne que social ñëpp ci war jàpp mujj nañu koo jaayee un million man dama ko def d'une pierre deux coups parce que dama ko def activité génératrice de revenu mooy femmes yi nañ ci gis seen bopp ñu accompagner leen waaye kees bi it na ci dund. bi ñu nee dañuy jaay euh, dañuy def tong-tong ci tam xarit bi muy los de Morlam xam naa ñu bëri mu leen koy ñu ngi koy fàttaliku dañu ne ku nekk boo joxee treize mille cinq cent dinañ ci ut defal la cinq kilos yàpp donc cinq kilos ndawal yooyu ñun ñu ngi ci xalaatoon am ci ku nekk kilo bu ne trois cent. donc trois mille cinq cent la ñuy am par membre donc vous imaginez kees bi tamit liggéey na parce que membre bu ne bu ko joxaatee mille cinq cent am na lu mu des ci biir kees bi waaye femmes yi tamit meruñu ci ndax biñ leen ko joxee it dinañ ko jëriñoo ba pare doog a fay en trois mensualités développement moom développement communautaire ci koñ la ci gox la famille boole seen doole ànd jàppalante pour liggéey donc bu ñu ci biir jàppalante boobu la ñuy xool ay stratégie yoo xamante ne dinañ mun a accompagner femmes xool fan moo metti parce que tey jii boo bëggee dem ci jàkk ji ticket yi balaa ñu la koy jox da ngay fay teew nga bëgg a jënd cere bëgga jënd légume peut-être dina nekk somme bu exorbitante boo xamante ne du woon neex a génne léegi nag ñun bu ñu leen joxee ndawal léegi nag ñoom bu ñu jëndee seen légume ak yooyu ndawal a après ñu fay mois. calebasse d'or pour jéem a liggéey la aussi xam nekk am na lu ñu war a denc xam ne am na lu ñu war a jëriñoo du nekk événement bu ñu yore dañu war a feetu mu jeex ñu recommencé à zéro du bitu calebasse d'or parce que jàppalante balaa muy am nit ki mën ci am pas bu mu teg ci kanam. mu ñu gën a mënee épargner ci lu lu leen lu leen dul gaañ. pour que ñu mën a aussi économiser mën a am tamit euh, benn euh, éducation financière daal. pour sax ñëw ci Covid bi rassemblement dañ ko tere comme nous avons six caisses de quarante cinq dañ ko détaché léegi présidente bu nekk léegi këram lay nattee léegi dañ ko ubbi onze heures du matin xam dañ daan natt dix sept heures jëm dix huit trente léegi onze heures à partir de onze ku jëm sa kër présidente rek mun nga natt jóg dem sa yoon. bu ñu yeewoo dimanche à partir de 11h rek ñu ngi nekk ci service su calebasse bi pour nit ñi bañ a fekkante bañ a toog ensemble. léegi nag dinañ waxtaan suñu biir am envisagé nañ ko ñu ngi ci sax di wax naka la ñu mën a xool ci suñu solidarité parce que ñun suñu solidarité dañ ko defoon exclusivement pour corps corps moom dañuy jox euh, euh, sukkur corps ñëpp la veille mais dinañ ci jël nag ren incha allah benn partie xool nu ñu ciy jëndee ay gel ak ay kii accompagner famille